بالله أسمه علي من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغ نجنو دين زيارة ديجيتال كنو يبقى زيار بي كليفة ديني نك كريوم يب خليفة العام لطائفة المريدية الشيخ محمد المنتخب ñoo ngi koy nii di ko ziar te ñaan ma yàgg fi loolu te di nuyu kilifa tiijaan yi tiwaawan xaadir laayeen ñaseen bàyyiwun kenn di nuyu tey ziar képp ko am cër ci lislaam ñoo li nuyu bu baax te di la jox wàccuwaay bi yàlla ci yow noonu la nuyoo kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp dale ko ci njiitum réew mi ak ñu topp ci ginnaawam ñëpp di nuyu sopp yi taalibe yi nga xam ni ñoo nga topp sëriñ bi jamono bu ne ki youtube bi di jëriñoo ay kaddom mo xam ci rew mi ak bitim rew fu ci way ma dina ki mbolem gox yi fasantikoo koy ñu ngi nuyu baaxa baaxa baax ta di la ziyaara baax rawatina ñi nga xamni abonné nañ ci chaîne bi di nasu TV Média waaye rawatina ñu bok ci groupe bi ñu ngi nuyu ñep di len ziyaara baax mbokk arab gu jot ak seen émission waxtanu dine ñu koy def fi ci nasru di and ak Cheikh Serigne Assane borom nasru di ñaan ma yagg fi loolu te di nuyu ñi nga xam ne ñoo teew ci salle bi yëpp sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu yow bu baax te di la ziar di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér mm. bu ko defee émission bi dañuy tàmbalee ci question yi nga xam ne rot na ci. Mm. ñu jël ci ñetti question rek bu ko defee ñu ñëw ci li ñu tax a dëgg muy alam nasra incha allah bi mm. question bu njëkk bi sëriñ bi ginnaaw boo nuyee ba noppi mbokk mi dafay laaj ba xam zikri yi nga xam ne moom ngay joxe ci euh, YouTube bi maanaam wird yi mm-hmm. ndax képp koo xam ne jot nag ci rek am na ci ndigal ci jëfe ko ci saase wala da ciy laajaat ndigal insha allahu rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa Seexul Xadim ñu ngi lay siyaare du siyaare mboolem ñu nekk ci salle bi ñëw teew fii ngir seen waxtaan diine di ko teewlu ni ko ñeneen di teewloo ci biir réew mi ak bitu réew suñuy téléspectateur ak suñuy téléspectatrice suñuy auditeur suñuy auditrice encore fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ci réew mi ci kilifa dina kilifa ni ko waxe hmm. ak kull koo xam yaa ngi topp seen di nasru media TV nga xamni kiri kilifa yu bari abonné nañ ci ngir seen walu sharia réew mi bitim réew di dund buñ noppé di top di ci ya, def eh, ay gëstu nu ngi len di exquisé wu ñom ndax yeen say wax ñu lopp xam-xam pour diglu wala ñoo bokkal li nga xam ni ko xamee ak ñoo xam ni ni nga ko xamee xamewuñ ko ni muy ñett ñoom waaye dañu wax ne waxtaan li koy waral mooy xam loo xam ni damaa jàpp ni xamu ko ma bëgg nga xam ko ma di ko wax dina waral waxtaan am na it façon boo xam ni damay xam dara nga xam ko xam naa ni sax ni ma ko xamee nga ko xamee waaye dama bëgg lu wax moo tax ñu di yow di wax am yoo xam ne sax ni nga ko xamee xamewuma ko ni waaye xam gi nga ko xam te xamewuma ko ni nga ko xam moo tax nit ñi di waxtaan loolu dina ko waral kon yii rek a fi nekk hmm. ngeen xam nu nu xamut bëgg na wax ci mbaa nu xam lu ngeen xam bëgg na wax ci mbaa nu xam lu ngeen xamut bëgg na waxtaan ci hmm. su boobaa du aaje dolleen ñu dem seer yi suñu mbokk yi nekk Arabie Saoudite yëpp hmm. toujours maa ngi jot ñoom soxna Aysatu mi nekk Arabie Saoudite ak ñoom soxna Nogay ndeysaan mi ngi wax ni mu ngi nuy bàyyi xel fu mu toll xañ na kattan geeg yooyu rek waaye yàlla na ko yàlla dëbb kattan ak soxna Jeena ba ñoom ñu nekk foofu ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ci màkkatul mu karam ak li ko wër mm-hmm. Mm-hmm. dem america siyaar mm-hmm. kilifa yu baax ya fa nekk muy tante ya, bàjjan ya sœur yi frère yi papa yi doo bàyyi kenn ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Mm-hmm. di leen ñaanal tawféex ak mm-hmm. xam naa ne dëkk boo bari ay mm-hmm. fan yii ku ma woo rek ni ma jox ma sëñ Xaadim. maa xam ban biteel nga yor. xanaa si biteel <laughs> yaa ngi jox ma jox barakallaa <laughs> ñu si yàlla leen lépp fu yëpp ci continent yooyu. di leen ñaanal tawféex ak sutura. yàlla defal leen cet. mosal leen ci ndox. Eh, di ñëw union européen siyaar ñoom ñëpp foofu ñoom tamit hmm. kilifa yu baax a fi nekk yu bëgg diine te bëgg lislaam te bëgg islam daal axsam doo bàyyi kenn nag France ak li ko wër Italie Espagne tout ça mboolem dëkk yëpp nu ngi leen di topp hmm. ñëw Africa siyaar leen dëkk yëpp bàyyiwuñ kenn parce que problème mu temps la moo tax hmm. duma lim lu bari ci loolu ndax heure bi bëgg a jot ndeysaan bu ko defee ñëw siyaar kilifa dini ci dëkk bi ñu ne kilifa aada yi hmm. rawati tuba Tiwaawan ni ko waxe hmm. kaw la kat laayee nag cana ba démb rek ma nga am ay kilifa yu baax hmm. waa cana ba sekk ñu sa sax yalla yàlla dafa leen tawfeex ak suñu di ci topp bu baax baax bu ko defee ñu ñëw tay jiti alarba ra mooy ñaata fan 17 fukki fan ak juróom-ñaar mois de novembre mm-hmm. yàlla nañ ko fekk 2022 mm-hmm. di jaay si Daawud alayhi salaatu wasalaam kon Seexul Xaadim ñu ngi ñëw ci jataay bi bismillaahi rahmaani rahim mm-hmm. am na ku la yónnee laaj defe naa waaw jërëjëf sëriñ bi ñoo lay nuyu bu baax jëlalaale bu baax a baax a baax di am kontante ak sant lool gi ne yow gi gi def ak yow saa su ne xam naa biseel boobu rek moonu moonu moonu moonu jàpp <laughs> waaw ndeysaan waaw ndax nitu yàlla moom saa boo toogee ak moom wala borom xam-xam mom boy taataan ci mom non rek lay mën a kon yalla na yàgg lool mhm. ak sëñ Tuubaa mhm. wa première question bi sëriñ bi mbok mi fay laaj ñu wax seyna diw ba xam euh, di diko laajal ñu bari ndax yàgg na bo xolé da ngay euh, commenter da ngay gis ñu bari ñu ñu insisté ci laaj boobu mhm, wér yi nga xam ni yang koy joxe manam manam isnul am la wala isnul khas manam ñepp ci am digal wala wala waaw xam la doxaasiya du xususiya lu xas génn ci suñu gémmiñ ñu di ko wax ci caméra yi ku ko jot mën nga ko jëfandikoo ya nekk ci biir nga xam nag moom suñ ko doon tudd dangay wax ay arme lourd nga xam dafay aajo def tuuti tarbiya xam nga am na ci ismaay asam yoo xam day aajo tarbiya mën loo ko tëb tëb sëf ko nit ka ndax kon day diis ci moom looloo waral daara di am hmm. laxas dem fi barab tok fa ab dir nu tarbiya la jangal la ko nga dem hmm. yoy ñun loolu lañ def ñun niñ ñu fa wax lu nek biñ ko koy wut dañoo gàddu saak laxas ndig dem top goor yalla hmm. bam nopp ci yow dila jere jef ni la lii ni lañ koy def hmm. nga test ko bam aw yoon mu la demal seen am na ci ismilay asam yo xam sax kenn du ko wax ni da ngay bind ci soore ni la liral nga jang ko ba mokal ko ñu effacer ko far ko parce que dañuy bañ mu am trace mhm. yi ëpp en général ci yooyu mhm. ñu ko fi yor te amuñu ko leen top dañuy faatuwaale ak moom parce que doom ko ko jangal motax mhm. bané ci xam-xam lu réer lu bare bare man ñaan na ba ci àll ba bind ko ci àll waaw waaw motax xam-xam bu bari sanku la so gëssé ñi def yi yeen ci sax wax ci hadith ni ko am xam-xam nëbbu ko su ëllëgé yow ma xeebatu akbar bu atté jami ba nak ci sawara xam-xam bi lañuy soppali ko ay seen Hmm. ngalaabe la ko nga hmm. am xam-xam bu ma la jariñ nga nëbb ko ba faatuwaale ak moom te joxe wu ko parce que moomoo ko dañ ko jox hmm. man bi almihi xat baxila waaw kay fa innahu xabla mamaati yubtala loolu la yoon di alisat sa boo déggee ni ko tudde ñaari ñaari ñaari ngay boole ko am moom xam xam xam gis kon du xam képp xam nga ci dara xam gu mujj gi xamle la xam xamle gis nga ko mm-hmm. waaw bu fekkee yow da nga nekk aji xam mm-hmm. juy xamle dafa am beneen waaye mel ni saari bu nekk kuy xamlu mm-hmm. xam-xam noonu la maanaam patrimoine alal mel fi ne ñaari moo ngay boole doo ko matale muy am am gis nga ko am xam nga téye na. Mm-hmm. lu ma war a defaat. am nga téye yow mm-hmm. Mm-hmm. nag. kon dañu mën a am man la am. loolu mooy am am. xam it da ngay xam xam ne. mu doon dul xamoon waaye su fekkee dafa yem ci yow képp xam na. boo kenn xamoo dara. xamoo dara ndax du jariñ dara. fii ne junni ci poos. loo xiif xiif xiif fekk tojogoo ko. junni bi toj rek. saa yu ne delloo weccat ci lay doog a jariñ dara moom. ni la xam-xam mel na. léegi nag secret yi nga xam ne moom la ñuy wax. boo gisee barke bi daal ëpp ci mag ñi. Mhm. da nga gis mag moo xam ne ay kàggoom bariwul. Mhm. benn barke lay wax. dara la kap ñëpp di ko tudd suba ngoon ñëpp di ko rang suba ngoon te lu mu ñaan yàlla nag. Mhm. coono moom ci daan dañu tax. am na koo xam ni mënul def tarbiya muy dem foofu saagam fekk la fi barab toog fa ngir jàng waaye day yàlla day dogal mu am as tuuti. Mm-hmm. ŋàbb ko fekk dafa nga ne. Mm-hmm. ni la secret sangam laa soxlaa. Mm-hmm. man yu bari waa kay man mi jaar naa ci. yenn saa yi fekk nga doon donga daara. sa walis ngay jël la nga la ci nekk ci ci yére yëpp takkaay ka joxe ko ngir wenn tur yàlla. jox man nangami mbubb nangam ci takkaay nangam ci nangam nga dajale ko. dajale yére nga am ak la nga jotam ci xaalis ak la nga jotam ci nangam dem yóbbu. am jo yoo xam da nga am ab tool joxe tool ba yi da nga naan aw fas joxe fas wa ñu hmm. war ko jox nga yóbbu ko mooy tax lo ci hmm. Ah, hmm gis njariñ la hmm. am nga loolu mom Seera Fall waxoon. maa ngi fàttaliku ki nga na ay doomam ak ki ba. waaw ci kaw la kaw la. <laughs> tam don ko la secret relatif. mu ne ma ngir ma jox la ko may teyel sama dara ji. jàng leen ba xalé fet ij damay tukki Côte d'Ivoire. ci kër maalum la mhm. kër sëñ maalum la nekkoon mhm. su ma demee ba ñëw fekk xale yi fet iji ma jox la sirru bi nga soxla mhm. su fekkee fekku mu ñu fet iji nag nga xam ne njëg moom jaragu hmm? ñetti weer nag laa fay def hmm. wala ñaari weer ak nangam hmm. ma jéngu ko ni ko bisimilah dem daal jël daara ji moom mu dem dikk bàyyi ko ci kër ga def naa yitte ju ne ba ba mu ñëwee waxuma la fet iji waaye ñi gën a bari ci ñoom ñi amaay tax suuf ñi jëm kaw nu koy tari boole bi lañ waaye boo ko defee ba noppi sax ba ñëwee xam naa daa dem ba ci biir xool bi nay. si <laughs> xam-xam waaw waaw ndeysaan. Mm-hmm. def nañ fa ñaari fan waxul dara ñetti fan waxul dara ba ca ñetti fan ma ne ko waaw tey tey ngaa seet daara ji wax doo ngay noonu mm-hmm. seet naa leen. ma ko am noo de mën a wax dëgg yàlla li ma doon coow am naa lu ko raw. Mm-hmm. waaye nag naa la ñaanal nga dem ndax seet naa seet ba lii nga may laaj moom laa yor. waaw li nga may laaj moom dong laa yor su ma la ko joxee may def. ma dem ko dëkk su mu ne daal naa la ñaanal boo soxlaa xaalis man ko fi woon. Hmm. noonu la ma ñaanale ma yiw ko ginnaaw bi laa ñibbisi. Hmm. suñu borom dajale ma benn waay bu bàyyi ko woon Guinée. Hmm. ñëw fii ci pompe bi ci kër Mor maa ngi liggéey alaaku sarihu xaribu mujjibu. ñeenti tur yooyu. moom def xalwa la toje nañu woon ma ko. Bangoro la sant loolu dëkk fi. dafa mel ni maa ko tax na jógee Guinée ba Sénégal. jox ma may dara ba. barke tarbiya bi xam naa waaw kay. booba maa ngi fàttaliku booba booba la mbubb yi ñuy wax seexu sagali seexu seexu sagali xew. Hmm. mooy ñoom ñu isat après ñoom yi ni ñuy soloo. Hmm. yooyu la woon boobu moom laa am ñaar. Hmm. ak kurus gu rafet ak kaamil ak ñett ju ne nangam laa dajale jox ko mu jox ma ko. fa tabarakallah <laughs> yu mel noonu yi yes na da nga dem ci àll bi di bayal topp ëpp di ko bayal. tool yi. dafa nawet ak noor ba keroog mu noppi ci yow. Mm-hmm. gis nga yooyu moo daan tax li xew-xew. Mm-hmm. loo ci def rek yàlla fekk la ci. nga mm-hmm. barke lu mu am. yàlla fekk la ci. waaye du tere ñi ngi koy jox ni day xol bu sedd. ndax nit a ngi nekk en distance. réew ak réew. am jafe-jafe àdduna. ndey mënu ko faa fekk bàyyi mënu ko faa fekk. waaye jullit la gëm na yàlla gëm rasul la ngay sàkk ci téere yàlla bi secret yoo xam ne boo ko yetee fa mu nekk mu jëfandikoo ko yàlla ubbi buntam mm-hmm. mu nekkal ci jafe-jafe mu dañ mm-hmm. yàlla may ko ko mm-hmm. ba mën a ñibbi si réew jàmm am ci ñu am kóolare yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo da lay woon ne gis naa ko bi ko defee lambu seen at yi la yàlla na yàlla ñëpp ñu ko jëriñoo jaay si nabi alei kon loolu rek mooy dafe ne kon bisimilah ñu ñëw ci liggéey bi waaw question bi mooy kon kon kon kooku am am na ci ndigal. am na ci ndigal. Mhm. képp ko ko liir ci biir nasru ci yu média. Mhm. fexeel ba comprendre ko na ko diglu bu baax lim yi ñu jox. nga di ko jëfandikoo suba ak ngoon wala suba wala ngoon am nga ci ndigal. man mhm. ko jëfandikoo. ak waaw bu ko jaawalee rek. waaw